kon bismillah baarakallahu fiikum jazakum allahu xayran cheikh bi kii nee na looy xew fale ca Palestine nga xam ni yahud yi ak seen mbonte yàgg na noo sonal jullit ñi foofu mu ni daal bëgg na benn euh, taxaw jàngat boo xam ne di nga leen di ko defal ñi topp fataawa ci mbir moom ak la fa xew fii ñu toll nii ak position bi nga xamni julit bi mom la wara a am foofa alhamdulillah masjid al aqsa day moy ñettelu haram yi ginaaw xaramu màkka ak xaramu madina mo leen ñettel béréb boobu mooy fa yonent bi salallahu alayhi wa sallam jaaroon ba muy rañaan béréb boobu bërëb bu màgg la bu tedd la boo xam ne masjid bu mag nga boo xam ne Omar ibnul Xataab ci xilaafaam ba ñu ubbee bërëb boobee moo ko tabaxoon wala ci jamonoom moo ko ubbi si woon kon bërëb la boo xam ne bërëb bu yitteel lislaam la bërëb bu bokk ci muqaddasaat yi la bërëb la boo xam ne aar ko dafa war wépp wartee fu taxaw wone nag ña fa gën a jege ñooña ñooña lay gën a war waaye ña sori it nag kenn ku ne am nga lu la war ñu nekk askan wi nga xam ne ñooy askanu lislaam ñu mel ne man ak yow miy laaj ak jàng laaj yeeg yow miy déglu keneen ak keneen fu ñu nekk fu nekk war nañoo ñaanal seen mbokki jullit yooyu nga xam ne ñoom la yàlla nattoo ni aru béréb yi tedd yoyé war nañu ñaanit suñu borom tabaraka taala dimbali leen bañ mëna aru aar béréb e. ba toskare du tabbi ci ko julit yi ngir sàggane ko ñi nga xamné ñoy ñooy julit yi doon seen kilifa nek seen awliyaul umur la leen war moy andando jëfandikoo lépp luñ mën ci xéetu pression yoo xam ne danañ ko teg non yoyé ba ñu mëna dellu gannaaw ci jëlgati googu yi nga xam ne ña ngi koy jëlgati bërëb bu tedd boobee yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallam dafa am xadis bu mbax wax boo xam ne bu raglu la boo xam ne bu mat di jàngat la daf ne ida raditum bilciina wattaxadtum adnaaba albaqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه إلا أن ترجعوا إلى دينكم نينا نعم، برم تبارك وتعالى دفا ام تكو قم تكو نيت ني فوفو كو صلى الله عليه واله وسلم مكو جوتلي nee na su fekkee ne yéen a ngi jëfandikoo ci wàllu alal loo xam ne lu daganut la mu jëfandikoo ci benn mu indi benn forme boo xam ne noonu la ko leerale mu ida raditum bil iina al benn forme ci forme riba yi iina ci boppam daa am ay anam yu bari waaye bii mu wax benn la ci mooy ba ca gën a mooy nit ki am soxla xaalis di wut xaalis te gisul ku ko lebal xaalis mu ñëw ci yow jaaykat bi ne la dama bëgg nga jaay ma téléphone portable bii waa ji ne ko téléphone portable bi de cent mille franc laa la koy jaayee waaye dama la koy lebal mën naa la ko lebal ci cent mille franc mu daal di koy leb ci franc bi ci waa ji jotee bi mu ko daataan ubbi xool mu ne ko bu la neexee de mën naa koo jënd léegi ci yow ci cinquante mille francs mu daal di ko koy jox mu jox ko cinquante mille francs ndax fekk na moom cinquante mille la yore la amoon soxla bi ci jotee ba àggal cinquante mille yooyu kon waa ji jox na ko cinquante mille francs ci loxoom téyewaat portable am ba noppi waa ji continuer yoreel ko cinquante mille aw njaayin wu bon la woo xam ne daa tegu ci kaw exploitation waaye day làmboo wépp xeetu jëfandikoo alal woo xam ne wu daganut la nga xam ne ka koy def lam ci jublu mooy na alalam bari rek moo xam dagan na wala daganut kon xadis bi daa mel day wax ne su ngeen demee ba kenn ku nekk ci yéen la muy xool mooy nu alalam bare waaye xoolul dagan na walla daganut mu teg ca ne wattaxadtum aznaabal baqar nee na ngeen topp càmm ga wa raditum bi zar'i ngeen topp mbay ma maanaam yéen a ngay def loo xam ne lu daganut la ci njaay ak njënd dëgg la yéen a ngay def loo xam ne lu dagan la ci wàllu càmm yéen a ngay def lu dagan ci wàllu mbay waaye loola topp ngeen ko ba tax na bàyyi ngeen li leen seen diine santoon muy wa taraktumul jihaad ngeen bàyyi jihaad fi sabilillah nee na su boobaa la cay tegu yàlla dana wàcc ci yéen toroxtaange joo xam ne du ko yëkkati mukk lu dul su fekkee da nga ne dellu ci def li leen seen boroom digal bàyyi lim leen tere loola nag lu ci ëpp xitaab boobu yi dafa jëm ci ñi nga xam ne jihaad sa sabilillah ci seen kàddu lay ame muy njiit yi kon njiit yi tey la jaadu ci ñoom ci àdduna mooy ñoom ñu bokk toogu waxtaan dundal lépp lo xamne moy tax seen non dut ñu leen dut ñu leen yàpp wa aiddu lahum mastata'tu min quwwa wa min ribaati khayl turhibuuna bihi adullahi wa adukum borom tabaaraku taala neena lu ngeen mën préparer ci ay ngànnaay yéen julli ci sooy boo ngeen def ko ndax ngeen mën a lo seen non kon julli di lañ leen sant mooy nañ def seen adduna ba mu baax nañ ko defar waaye seeni kaaraange yitam nañ ko defar ba nga xam ne kenn du leen yem waxuñu ne nañ tooñ kenn waaye nañ daal ci kaw kenn it waxee su ko waaye na ngeen préparé seen bopp ba ku leen seen ragal leen loolu yi la yàlla sant jullit yi ci lañ war a góorgóorlu danaa waxaat di gën a fedd li ne njiiti jullit yi la ñuy waxal ci yu mel noonu su fekkee def nañ ko def nañ la leen war suñ ko deful defuñu lu leen war askan moom la leen war mooy fuñ mën a toll ko ni ñuy ñaanal seen mbokki jullit boole di waxtaane mbir ma di ca yee seen moroomi jullit ya ca yeewuwut bañ xam fi àdduna toll xamitam la jaadu woon ñaan sun borom tabaraka wa taala mo dafa jullit yi tawfiq ak fépp fuñ mën a nekk aar béréb yu tedd yee nga xam ne béréb yi lislaam la ba kenn kuy jalgati du ca mën a àgg ñooy taxaw diko ari tam borom bi tabaraka wa taala jàppale leen dimbali leen may leen ci kattan ak ci ay pexe ak ci jom loo xam ne danañ mën a toroxal noon ya wallahu taala alam barakallahu fikum